Touba Xaadimu Rasul mi ngi gane àddina ci atum 1853 fii ci Sénégal mi ngi génn àddina ci atum 1927 ci Diourbel way juróom góor wa moo tuddoon Mamor Anta Sali Mbàkke way juróom jigéen ba moo doon wuyoo ci turu soxna Maam jaaro Buso Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bokkoon ci famille Bousso di sët ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa ci côté yaayam Maam jaaro Buso sëriñ bi toppoon ci ginnaaw way juróom wu jigéen wa di Mame Diarra Bousso seetuñu woon lu dul li neex suñu boroom rekk ñu nekk ci ñu doonoon ay jullit yu dëggu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moom moo indi tariixa murit ci Sénégal ak ci àddina Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Touba Xaadim Rasul mu ngi jóge Mbàkke Bawol liggéeyam yépp doonoon sent yàlla julli ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam bokk na ci ñi tabax senegaal ngir dàq fi tubaab yi nitu yàlla la woon ci jikko ak ci doxin doonoon na itam boroom xam-xam doon gëstu lool ci diine bi di islaam daan jàngale alxuraan ci jàmm teg ko ci diine ak ci xam-xam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul Moustapha bokk na ci ñu tabax senegaal ngir dàq fi tubaab yi nitu yàlla la woon ci jikko ak ci yar boroom xam-xam la woon waaye ku mënoon gëstu ci mbirum yàlla la woon Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim da doon jàngale lislaam ci jàmm teg ko ci xam-xam ak ci gëstu départu Cheikh Ahmadou Bamba ci Gabon bokk na ci li marqué histoire ci Sénégal loolu moo tax doomi aadama yi di amal ay ziyaar ak ay ñaan ci bësam boobule mu doonoon le 21 septembre 1895 mbokk yi ba tey ci métital yi doon métital Cheikhul Khadim Khadimul Moustapha ci Ndar tubaab yi boole woon nañu ko ab gaynde ngir gaynde gi métital Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul amoon ci yaakaar torop ci gaynde googule ba taxoon ñu jël benn sniper ngir mu nettali leen chaîne mi ndax boobu bu caméra amoon itam bariwul waaye keroog bi sniper bi làqatoo Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gisul sniper xamul ni sax sniper am na ci boobule jataay waaye keroog bi gaynde gi siggee ba ni lay daw jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi ak ni gaynde siggee ak taxawaay bi gaynde am ak melokaan bi gaynde yore daw jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Khadim keroog bi gaynde gi dawee ba jàkkaarloo ak daa dóor tànk kanam yi ci kanam jël bopp bi duur ci suuf jël genn gi dóor ko ñetti yoon ci ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim muñ ba sikkim say feeñ mu daal di jël ab mbuur bi nga xamante ni moom la yore woon ci loxo daal di koy sexal gaynde gi gaynde gi daal di lekk daal di dawaat dem dugg ci li nga xamante ne ni moom moo nekkoon kaafam mbokk yi ba tey tubaab yi nag daal di laaj ki nga xamante ne mooy Serigne Touba ni ko ñun lii lépp jaaxaluñu ndax gis nañu gaynde min li nga xamante ne ni moom mooy nit cirque yi am na gis nañu nit defloo ab gaynde lu nekk mais ñun li ñu jaaxal mooy lan moo tax gaynde gi daw wut si la tiituloo rafuloo dawuloo ba noppi nga muñ sa muñ googu nga muñ Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim daal di leen tontu nag ni leen dama xam ni dangeen a xamul lu xew rek waaye waxuma leen gaynde gi ngeen yore waaye ki nga xamante ne mooy borom ndar mi ngeen yaakaar sax ruuxam suñu borom teg na ko ci samay loxo ndax tey jamono jooju Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim moo doonoon le représentant de Dieu sur mbokk yi ba tey ci mettit ak jafe-jafe yu ñu doon teg Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim ci giiru dundam jotoon nañu ko yóbbu ci réewum Gabon daal di jël nag li nga xamante ne mooy tabourier sës ko ci ab garab jël Cheikhul xadim daal koy takk ci garab googule boole ko quatorze soldats kenn ku ci nekk yor li nga xamante ne ni moom mooy ay mitrailleuses ñu daal di leen di wax nag ñoom quatorze kenn ku ci nekk ci jëmm Cheikh Ahmadou Bamba fi nga war a viser bokkutoon nag ak colonel bi nga xamante ne ni moom moo waroon def li nga xamante ni mooy coup de bi waaye mbokk yi ñoom ñëpp keroog bi ñu ne fë kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk fetal bi nga yore woon dafa mujj tourné daal di taxaw nag ci sab dënn nga daal di tëddee li nga xamante ni moom mooy jaaxanaay ba mu sëf ki nga xamante ni moom moo doonoon colonel bi ndax moom moo nettali bi la histoire mbokk yi ci la suñu boroom daal di yónni waa axlu badrin ñu ànd ak malayka yi ñëw di tekki ki nga xamante ne ni moom mooy sëriñ tuuba xaadimul xadim mbokk yi keroog la mission boobu daal di la jeex sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim ànd ak yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam yonent bu tedd bi salallaahu taala alayhi wa sallam xamal Cheikh Ahmadou Bamba ni ko suñu boroom xamal na ma ni mission bi jeex na tey mboolem na yi wàcc na ba jeex li nga waxante woon ak ñun def nga ko ba mu mat sëkk yonent bi salallaahu alayhi wa sallam daal ko nag léegi nag yow Cheikh Ahmadou Bamba ana nga wax cheikh ahmadou bamba xaadimul xadim ni ko dama bëgg nga nàndalal ma sama xel ba mu ëpp xelu ku mësa bind ba noppi ni ko te nga tegal ma ci lu mu xalam mu ànd ak kun fayakun suñu boroom daldi koy nangul loolee mbokk yi mbokk yi sëriñ tubaa xaadimul xadim bokk na ci li mu wax ak suñu boroom ni ko dama bëgg nga yërëmal ma jaam ñëpp mbokk yi boobu ak léegi def na ci lu toll 137 ans après sëriñ bi génn réew mi taalibe sëriñ kilifa diine kilifa aada ñëpp ànd ak sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ñu koy ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam bu baax a baax ci réew mi mbokk yi coono yi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim daj na ko moom moo waral murid yi di bég di bégale di ko santale yàlla saa bu yegsee di 18 safar ñi ngi leen di jox di daje ba beneen yoon te naan jërëjëfe ci sëriñ Touba jërëjëfe ci sëriñ Touba jërëjëfe ci Serigne Touba ñi ngi ñaanal Serigne Mountakha suñu boroom yàggal taxawaayam wéral cëram mu gën a dund gën a wér Mbàkke Bàlla